jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokki gis ngeen match bi Sénégal mujj naa dóor Qatar 3-1 mais jëmm ji mooy dof bi nga xamante ni sénégalais yi gën nañ gis foto muy circuler am na foto bu doon circuler te defoon na tour di Sénégal ñu gis benn dof ñëw sëñ Abdou Karim Mbacké recevoir ko ñu ne sëñ Abdou Karim lan lay déewante ak dof bi dof boobee nag moo nekk nii danañ ko laaj lan moo waraloon jotaay boobu mbokki kii sol na benn mbubbu mbub mi sol na ko ñeenti at yoo xamante ni summiwu ko danañ ko laaj ndax dafa dofoon wala lan moo war loon mu sol woon melul melokaan wu mel noonu muy koo xamante ni borom xam-xam la mais jàmbaar la biig ci guddi laa ko woone ko Sénégal ak ak Qatar nu muy demee mu ne ma match bi trois 1 lay doon mais bul ko wax ca kaw mais nañu fàttaliku ne mbokk yi kii dafa am lu ko yàlla may Équateur la ñu war a am après match boobu nan lay demee danañ ko ci laaj ak ban sarax mooy tax ñu gagné match bi laata loolu dañu bàyyi sëñ Basiiru Ahmadu mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëriñ bi ñoo ngi lay seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu mbokki jullit di si jiital sëñ Muntaxa yàlla na fi yàlla yàggal ak sëñ Abdou Karim sama xarit ak mbooleem jullit ak mbooleem képp ku nekk Sénégal ak ak si monde bi yëpp rek incha allah ah, nga tolloon fi moment boo xamante nii tey mën naa ne koo fëggoon du la ubbil ay buntam nga jàpp benn mbubb sol ko ñeenti at nanguwoo koo summi foo jublu ñu ne kii di ñëw dafoo mbaay yaa lekk sa cere yaay te moyoo ñu ci waaye nga ñëw ba kër si Abdou Karim si Abdou Karim ubbi buntam jàkkaarloo ak yow sëgg déewante ak yow ndax mën nga ñoo nettali li nga xamante ni mooy jotaay ba nga amoon sa diggante ak Sëñ Abdou Karim ak lan moo waraloon nga toog ñeenti at yoo xamante ni menn mbubb rek nga sol nanguwoo koo simmi. dëgg la dëgg la dégg waaw ñun de boobu Dakar gi sax lañ nekkoon jékki-jékki rek am luñ fi jëlee ni demal Touba. defib liggéey. Mm. waaw xam nga Touba dëkku liggéeyukaay la suuf sa moo barkeel da mm. waaw biñ demee Touba nag nekk fa di def ay liggéey. Mm. ba si yàgg léegi am xam nga dama daan sol ay ji nag ay yëpp. ay yër bu ne laa daan sol. kiloot ak yëpp. comme si rek. commencé di ko maye ñu ne ah dof na dof na dof na ma ngay maye yére yi <laughs> rek ma dem marché Ocass jënd fa percal sol ko nag léegi moo ko defee nag léegi sama mbokk yi nag ñi ma kii wérul ndax si lim nekkoon xëy xëy def ni am na lu ko dal dafa dof wala yooyu commencé dem di ñaan lu jeeg yooyu bu ko defee léegi man man ne si sama liggéey sol yére maanaam pour xam nga su ma kii lépp day gën a gudd sax yére boobu rek sol naa ko ba ñeenti at ñeenti nekk si genn kër maanaam xam nga bi ñu ma génnee dama demoon si genn kër guñ ma aal hmm. di fa liggéey hmm. liggéey boobu nag def naa at si kër goo xam ne génn ma uh-huh. at at boo xam ne xamuñu mbedd bi mel. atum yàlla nga tëju ko ci kër nanguwoo génn. moo xam ni tëdd naa ko si kër gi génn ma. waaw bi ma ko defee nag léegi ba ba génn fekk yére bi sol naa ko ñeenti at. léegi nag benn jour rek am lu ma ne rek demal si Baye Karim ma dem seeti Baye Karim xam nga boobu amaguma fa ñu ma xam ak ñu may dugal ak yooyu. ma dem fekk ko si niimaa gi mooy si buntu kër moom si niimaa gi ma toog rek jàkkaarloog moom. dafa bàyyi ñëpp rek ni ma ah sëñ bi kaay. waaw sëñ bi kaay ma ñëw mu mu kii ma ñu waxtaan waxantey kàddu mm, mun ma xam nga boobu Kazu Rajab dafa des ay fan mun ma bu Kazu Rajab rombee da nga fiy ñu waxtaan. Mm-hmm. waaw loolu loolu mooy sama diggante ak Baye Karim ndax booba ñëpp maanaam man su may dem fenn sax tax sax duma ko jël taxi bu ma arrêté nga lànk tata bu ma arrêté nga lànk sareet bu ma <laughs> arrêté nga lànk sareet. mu nit sol ñeenti at tamit doo ko sol di ma arrêté ma la yóbbu. voilà sareet sax dama daan dox si yoon nii. xam nga am mbedd yu taa léeg-léeg benn jour maa ngi dox si benn jigéen jigéen bi dafa ñëw ba jumma rek taxaw <laughs> nara aree ma ne ko jàll dox bi du dóore <laughs> waaw mais li muy dem lépp mi ngi may mi may xool mais xam nga dama lay wan rek ni Baye Karim moom maanaam dafa woyof maanaam moom yow li ngay gis xamoo ko peut-être moom da koy gis mu xam ko voilà xam nga yàlla mooy may si la ma jàppee nag jàpp ma teg ma fu kawee kawee ba nga xam ne même patron yi fay ñëw sax man maa ngi gën am sañ-sañ si Baye Karim sa xarit la daal sama xarit la ak lu fa nit nekk nekk ak noo man di mel man su ma ñëwee man damay jéggi dugg nuyu ko. ci jamono jooje am ñu la euh, découvrir euh, daan la fekk si euh, li ëpp ci nit ñi daan ñëw ci yow donte dañ lay fekk nga yor melokaan woowu tey bu nit ñëwee nga xool ko ne ko yow raba ne ci yow nga fekk ba mu wér tey rab nekk loo xamante ni man du ma ne jaaxal na la parce que yow laa gis sëriñ boo xamante ni da nga faj ay nit ci rab. ba ñu wér man xam naa ay nit ñoo xamante ni dañ daan daanu xam naa nit ñoo xamante ni rab taxoon na daawuñu am jëkkër xam naa nit ñoo xamante ni rab bokkoon na ci li leen merloo tey bi la yàlla boole ak ñoom ñooñee faj nga leen ba ñu wér ba ñooñee bi may njëkk a jàkkaarloo ak yow ñoom ñoo ne ma demal nga jël sëñ Basiru Ahmadu nga def ak moom émission ngir xam-xam bi yàlla def ci moom sëñ bi rab laa bëgg nga dugg ci laataa ñuy ñëw ci suñ prochaine match ñun ak Équateur parce que Équateur nag foofu la bi nekk ah, duggal ci rab ñëpp xamee. Mm-hmm. ba ma dooree ba léegi. Mm-hmm. rab moom mooy sama mbir. Mm-hmm. bi nga xam ni moo gën a sonal xale yu ndaw yi. ak mag ñi waaw si boobu laa gën a xariñ. xam nga ni boobu sonal na ku nekk. ndax léegi xale bu góor boo gis mu takk jabar presque vingt cinq ans boo moytul ay waagal mi dañu war a sëriñ. bu kàttan. day day néew kàttan. kon rab day néewloo kàttan nit. moo ko maanaam day néewloo kàttan bay tëleloo nit. allah akbar voilà maanaam man léegi damay ñaan kilifa yi bala ñoo takkal seen doom. Mm-hmm. soxna. nañ ko woo waxtaan moom ni ko ndax yow est-ce que yow mosoo mballu yow bi nga nekkee yow ba yow. ndax yow voilà ndax yow mosoo def masturbation. ndax chaque jour seen parents yi ñëw si man. Mm-hmm. di ma euh, ni man ma ne sama soxna doom mais ma sa kër ga fukki fan ak juróom a ngi nii am naa gàcce ndax mënu si dara. Oh. ma ne ko wool ma ko. su ma ko walee xam nga lu ma koy laaj. Uh-huh. ndax daan nga def mbalu mun a luy looloo di <laughs> ah. mais yàgg yàgg rek danaa ah mas naa def. Uh-huh. mais koy def nag xaw ma woon lii dina ma indil néew kàttan. Uh-huh. mbal mooy lan ak rab mooy lan rab mooy li nga xam ni dalay fekk yow mosoo mballu mosoo def dara. mu jékki-jékki dugg sa xel. bu duggee sa xel def sa xel mi sëy. maanaam def sa xel mi ngay nga am machination sëy. xam boo koy def rek góor-góor la boo demee da sa bu jógee moom amul dara loo si xalaat ndax yow amoo soxna amoo dara am ñoo sax amuñu gel bu loxo bi di si foo di si foo ba nga xam ne dañuy daanu léegi nag daanu googu ñuy daanu uh-huh. boo ko defee ba pare rab bi moom am na li mu bëgg ba dem uh-huh. maanaam rab bi ñëw na de gisoo ko de mais mi ngi lay gis uh-huh. waaw rab moom li mu soxla si yow mooy manaam sa gel lay doon laa ko mën a wax rek dina ñëw foloo la yow li nga koy jox moom mi ngi koy jël. mais yow yëgoo ko yow tamit yaa ngi am bànneex mi ngi am bànneex moom su paree dem. Mm-hmm. waaye yow su paree dem man ngaa sax jooy. Oh. am ñoo xam dañuy jooy am na ñoo xam ku ne lay dal nag. ay kilifa ah. ku ne kamay woo. ay kil ku ne jàng da ngay gis koo xam day jàng day day tari saar bu nekk dina dina naan lu nekk mais mais du ko bàyyi. Oh. ba am am ñoo xam am nañ ñaari soxna ba ñetti soxna ñi ngi koy def. ay kilifa yu mag a mag a mag. yor ñetti jabar ba pare di mballu. yor ñetti jabar ba pare bàyyi ko foofu dugg si biir duus bi di mballu. déet mais xanaa ndaw sa la war a def ca laal ba da koo deful. déedéet mooy li ma la rek lu mu njëkkee woon sa kam njëkk la waaw sa kam njëkk ba pare la xam nga du ko gis mais kook moo gën a neex la sa gën a yomb ndax kooku loo feebul feebul mën ngaa seey ak moom. <laughs> waaw waaw xam nga soxna pour nga mën a seey moom il faut nga am awra bu dëgër bu jot. Hmm. léegi nag ñoom si biir mballu googu ñuy mballu nag léegi dañuy dem comme sa ni ñuy mbaloo di mballu ni dañuy dem ba seen awra bi day dellu day delluwaat si naq bi. léegi nag bu delluwaatoo si naq bi nag léegi. Uh-huh. day dem ba tuuti ba pare nooy. léegi nag yow jamono ji nga koy def amagoo jabar de. waaw amagoo jabar de da yaakaar ni góor nga ndax léeg day rëcc léeg-léeg mu rëcc guddi gi wala bëccëg gi jóg. waaw nga yaakaar yaa ngi si mais bis bu ñu la mayee soxna rek doo si mën dara. Oh. bis bu ñu leen mayee soxna si la ñuy commencé wër sëriñ nag. ñoom ñëpp nag mu leen di conseiller képp koo xam ne yaa ngi mballu. képp koo xam ne yaa ngi mballu jugal nga seeti sëriñ bu na a faj si néew kàttan. balaa ngay sut soxna. surtout ñenn ci waaw am na ñu nekk bitim réew dama ne ñëpp nag waaye ñenn ci am ñu nekk sedd bii. bari fa da ngay gis ñoo xam ne amuñu fa soxna ñoom it mballu dikkal leen maanaam moom lañ def seen soxna. mballu mën na def seen soxna. da gis koo xam ne dafa lay man chaque trois jours dinaa mballu pendant des années. man bokk naa ak nit euh, train ñu jugee euh, Paris euh, di dem Bordeaux ma bett ko ci douche muy mballu te kilifa la mi ngi may seetaan maa koy seetaan bu arrêté wul dinaa ko dénoncé. waaw xanaa déggoo li ma la ay kilifa la ay kilifa. xam nga li duñ tudd tur mais dama ni mën na dal ku ne. Mhm. maanaam yow nga mballu taxul nga bon. Mhm. yow yow mi mballu yow. Mhm. yow may seetaan taxul nga bon. dafa am loo koy def loolu. léegi loolu bu demee ba nga chronique si nag moom doo doo ko bàyyi même boo takkee soxna yow soxna si kële moo la koy dàqal. mais lan moo koy faj lii ñu ñëw ci faj mi. waaw waaw waaw waaw xam nga mballu moom li muy def mooy mooy li ma la wax day delloo awra. day day yàq sidid xam nga awra sidid yi kaw yu côté yi la am. mais nag boo koy def di ko def bu yàggee sidid yi mooy dem ba ba bàyyi ba nooy. Hmm. léegi nag bu ko defee yow pour nga mën a sëy day jafe. Hmm. da ngay gis koo xam ni day am soxna. mais buy ñëw rek buy buy ñëw ba dugg si kër Oh. ndax day xam ni kii tey amul confiance ndax xam na ne Sidi tamit maanaam amatul yëg-yëg. Mm-hmm. amatul yëg-yëg. Mm-hmm. bu ñëwee maanaam awra bi dina jóg de mais xool bu ñëwee ba jub soxna si nii rek. Mm-hmm. awra bi day wàccaat. da ngay gis ko tiit naan man dañ ma liggéey ak. maanaam boo dee ko am soxna yu bari da nga naan sama awa moo ma ko def. fekk ñu ngi tooñ seen i awa man ku ma si woo lu si gën a bari dama naan est ce que sëñ bi daawoo mbalu mais xam nga mag day xaw a tuuti dañuy wiiri wiiri mais dañuy mujj ni ma rek dañuy mbalu ñu nag dañ koy faj dañ koy faj ba mu wér. mais ah, lu yomb ah. ah maanaam liñ koy faje moom rab bi lay ah, njëkk a faj d'abord. rab bi njëkk a faj d'abord rab bi. bitel bii mooy faj rab. lii benn sangat la boo xam ne yaa ngi koy sangat timis. timis balaa ngay wow commencé cuuraay bi kii boo ko defee juróom-ñaari fan yu njëkk moom di nga ko commencé bàyyi incha allah. waaw xam nañ ma si lii moom lii moom du caaxaan du naxee du dara. Hmm. ku ko jël. lii boo ko commencé tey. Hmm. juróom-ñaari fan yu njëkk yi moom di nga bàyyi mballu di nga bàyyi mballu di nga bàyyi mballu sa xamoo ni mballu mën na la yàqal leneen. Mm-hmm. mën na la tëj ndax yow xam nga yow xam nga yow yaa ngi ne si bàkkaar sa xam nga bàkkaar la. ndax yow ndax yow waroo jël sa awra di si laal bu ndox kenn sa ndox lan la sobe la. maanaam bi sobe la léegi yow man ñu bari ñu ngi ne Europe naan man damaa tëjoo sa fekk ñu bari mballu moo leen tëj. mballu moo leen tëj sa ñu bari nga koy wax ku la gën a woo Europe man damaa tëju samay mbir doxatul dama di mais yow chaque jour jël sa loxo bi di di ko di ba sa ndox génn. xool ma loolu xamu bàkkaar bi la xam nga yàlla moom mooy baale bàkkaar mais maanaam li si nekk rek soobee boobu rek yow mën na laa tëj. mën na laa tëj mais bu fekkee ne nit koo xamante ni dafa bëgg buy sëy ak jabaram di yàgg ci moom lool ba jabar bu xëyee ne ko nijaay tey posal may joxe dépasse jigéen ñi bu ñu bëggee dañu góorgóorlu ci yow lan moo gën a gaaw ci loolu. dëgg la loolu lool maanaam li si gën a gaaw mooy. boo mballoo ba nga xam ni sew sa oro bi dellu na nooy na. pomade yi ma lay jox d'abord moom ngay jël bii ak bii ngay jël soo ko jëlee da koy diw si aw parce que am ñoom day jàpp ne fekk mbalu waruñ ko def li <laughs> ah. maanaam yow day tax sa awra bi moom génnaat bu ndawee ba pare. mën a dëgër. léegi nag lii moom lu ñu siy diw la mais dafa am lu ñu si lu ñuy naan. Hmm. garab yi dañ koy naan. poudre bi waaw poudre bi dañ koy naan dañ koy def si café wala meew wala wala gingembre di ko naan léegi soo koy naan lii maanaam mooy tax sa sidit bi xam nga sidit bi day day xaw a faible lii nga siidiw moom mooy defaraat sidit bi ndax lii ay karité la ak ay garab yi rek moom mooy moom mooy defaraat sidit bi ba sidit bi a dëgëraat léegi bi mënee léegi nag soo naanee li nga xam ne mooy tax mu am doole nga xam ne di nga mën a sëy 15 minutes 20 minutes ba 30 minutes ba 30 minutes da ngay mën a sëy ba 30 minutes garab yi boo ko toppee mais nag du du garab yoom xam nga nit ñi dañ lay woo ni la man damaa soxla garab mais bu leen waxee garab ni la am naa bi dañuy choisir jël bu yomb bi bu ñu jëlee bu yomb bi nag gis ñu lañ bëgg nag ñu wàll na garab gi baaxul sa fekk garab gi baax maanaam maanaam garab wolof gu baax yombul mhm. man boog samay garab yombul waaw yombul benn si yomb si mais sëñ Basiru Ahmadou euh, tey euh, jabar ji ñëw na ndaw si nga xamante ni fii ak 30 mi da nga war a sëy ak moom kon boobu vite fait nga soxla ndax boobu am na fi. am na am na vite fait moo nekk nii maanaam may na la soxna tey tey tey tey xamoo woon da nga néew kàttan. Mhm. boo ñëwee dan da lay jox huit fa bi nag bari na ay façon ndax am na bii am na beneen bu gën a seer ndax xam nga santé pas sa feebar ndax am na ñoo xam ni garab bi mën na si ñoom dara léegi bii su mënul si yow dara am na boo xam ne da koy commande ñu defaral la ko boo xam ne sur commande la boobu soo ko defaree ak ak lu awr ak lu mu ndaw ndaw ndaw ak lu muy lu mu jóg lu mu lu mu tuuti tuuti rek day jóg si da mën a sëy trente ba quarante minutes loolu la ñuy wooyee ngemb lañ koy wooyee ngemb waaw ngemb mi ngi mel ni nga mbër mu wala bëre ji nga ngeem ko ni ko demal daan léegi su ngeem boo pare nag day ñëw ñu faj ko. Mhm. waaw mais xaalis bari la ba léegi dara yomb si garab yi ma lay wax. Mhm. yépp a baax du met sa bopp du xonq sa bët du tàng sa yaram. man nag côté boobu bëgg naa dugg ci ñu bari dañ naan ma am na garab yoo xam te ne bu ñu ko naanee surtout garabu néew kattan yi sa tension day baissé sa tension pare du xonqali bët lan moo tax loolu tamit. waaw mooy mooy garab yi nga xam dañ koy ji gaa dañ koy jënd def si ay doom. yooyu mooy garab yomb yi nag wala ñu wut seen ndox jënd ay doom xam doom yu bari na doom am na yoo xam sax paquet téeméer lay jar. ñu jënd seen doom dëbb def si ndox di ko jaay butéel 5000 butéel 2500. Eh. mooy garab yi yomb yi nga xam ni moom la nit hmm. mais képp ku ko si bàyyiwul waxuma laa say mais mën na la defal sax cardiaque fa ngay yem. Ah, baaxul mais maanaam garab naturel gu baax dëgg-dëgg day seer. Hmm. amul gu si yomb. ay ca mbokk yi numéro téléphone sëriñ Basiru Ahmadou mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot euh, sëñ Basiru euh, tey euh, góor ñi dañuy wax naan. seen jabar yi ñenn ci ñoom ñoo naan seen jabar yi yemuñ dañ leen di mooy am jigéen ñu naan ñenn seen jëkkër yi dañ leen di mooy mais ku bañ sa jabar mooy la wala sa jëkkër mooy la maanaam boole góor ak jigéen bañ def benn maanaam nopp laa bëggoon nga dugg ci ànd ci leeral. waaw waaw mooy mooy li ma la wan nii fii rek mooy li ma la wan nii rek lii maanaam yow boo gisee ne sa soxna maanaam bëggatu la lool lool. comme avant bi ngay génn ak moom. bii nii bu ñu la ko joxee da nga koy boolee ko xorom sangoo ko ñaari fan ñetteel ba rek bu ngeen jotee incha allah suñu borom day def moom da lay gën a bëggaat. maanaam day mel ni ba nga koy doxaan ni beese woon noonu lay melaat si yow incha yooyu moom yooyu moom am nañ si lu wér a wér incha allah. mbiri kër a euh, euh, tey bu fekkee ne koo xamante ni hémorroïde ak ndoxum sit daf ko sonal parce que maladie yooyu tamit sëñ bi yooyu xeex ak ñoom jot na. waaw xam nga ndoxum sit yi. xam nga dama ñëwoon si ay masturbation mu indi néew kàttan rek mais ndoxum sit yi. lu indi la. ndoxum sit lu indi néew kàttan la. Mm. xam nga ndoxum sit day tàngal yaram. moom hémorroïde. Ah. lu indi néew kàttan la ndax hémorroïde si biir la nekk. Mm-hmm. tension. luy indi néew kàttan la diabète mooy ma doon wax léegi jabet gis na bii jabet lu indi néew day wàcc suukar waaw xam nga dafa am ñoo xam ne ne dañuy faj jabet ñoom ne dañ koy faj man nag garab gi day wàcc suukar mais du faj jabet day wàcc suukar ba pare en même temps may la kàttan boo néewee kàttan waaw bii moom bii moom loolu mooy njëriñam incha allah ah, mais ba tey euh, ci cadre bi nga xamante ni moom mooy cadre jabet tey euh, nit ki day faral di wax naan diw am jabet lii tax na mu néew kàttan te ji lii ndax nit ki mën na koo jël ba pare boole ko ci sungufu néew kàttan bi. waaw waaw non xam nga lii day faj néew kàttan tamit lii. ah da day faj néew xam nga jabet mooy lan. Hmm. mooy yow sa deret. moo amatul moo baaxut. jabet loolu lay def day yàq dereti góor. day yàq xam nga deret moom mooy. maanaam mooy pompe ah. mooy ñëw ba si awra moom moo koy pompe pour awra bi mën a jóg pour dëgër. léegi nag bu amee jabet nag. sa deret ji du baax du am doole. maanaam bu ñëwee ba si naq bi su ko waree pompé du ko mën a jugal. wala bu jógee bu jógee day nooy. sëñ Basiirou mbirum papier yàlla am na la ci may. waaw waaw waaw mbirum papier koo xam da nga nekk Europe. Ah. ay papier jafe la ñun ñaan gi ñu ngi koy def si këyit lañ koy def. waaw mooy këyit yi maaraay bin mooy comme yi ma la wax rek yii nii. si lañ koy ñaan saraxel la ko incha yàlla mën naa def nga am ay. këy këyit si bu ah. gaaw a gaaw waaw si bu gaaw a gaaw a gaaw. loolu euh, séjour lay doon wala wala wala wala green card. këyit rek. këyit moom këyit la rek. Hmm. yow këyit bi nga soxla rek. Hmm. waaw këyit bi nga soxla rek. mais sëñ euh, bëgg naa ñu dugg ci li nga xamante ni mooy euh, saraxu match yi di ñëw man damay gis ne match yi toujours dafa am ay résultats yoo ma ci jox maa ngi koy gis mais lu tax loo bëgg a wax ci kaw sarax yi mais joxeel sarax tamit. Hmm. yéeg may wax bu ma amee ndigalam de wax ko kaw mais waxal rek. waaw sarax moom xam nga man match du ma si faral di comme ni ma la ko waxee rek. waaw comme noonu laa koy nëbbee rek mais daal sarax moom ndox moom am na solo ak glace. waaw nañ ko ndox ak glace moom lu am solo la moom. suñ match contre Équateur wala. waaw yow boo daan boo kuy ne sa nawetaan sax nawetaan bu dee ku dëkk fii xam nga nawetaan. Hmm. moom moom sarax moom. ak glace moom laa si dégle quoi. moom nga moom laa si dégle. ay ca mbokk yi jëfe leen ko ndox ak glace la ax ma du wax ne moom la ci euh, diglee sëñ Basiru ba tey bu dee jigéen ki nga xamante ni rab da koo jàpp ba mënta am doom parce que des fois tamit rab tee jigéen ba muy ëmb muy tuur ëmb bi wala sax ndaw si du yëg bànneex am na jigéen ñoo xamante ni tey da nekk jàmbaar lool. waaye boo leen ni muy jàppee góor lay jàppee jigéen. Mm-hmm. waaw xam nga xam nga mën na jàpp góor di ko defloo masturbation même day jàpp jigéen di ko mas defloo masturbation. jë jigéen guy ñoo may woo ñoo may woo di. Ah. <laughs> jigéen day mastur comme ni góor di masturbation la ko jigéen di defee. <laughs> wallaay billaay am na <laughs> rab yow xam nga rab rab maanaam rey yàlla ko may doole maanaam rab yàllaa ko may doole. Mm-hmm. moo tax ni ko góor di defee la ko jigéen di defe mm-hmm. sama dama si am préfilère naan ndax mooy sama liggéey da ngay gis jigéen ji ma woo ne ah nga koy def mm-hmm. mais ba jàpp leen bi duñ mën a am mm-hmm. nga moo gën kan moo mën gën a daanu si rab mooy jigéen jigéen ñu bëree bëri ñu si gën a bëri bëri dañuy daanu oh. koo si gis presque yor na ay doom yu muy naan lan moo ko teg rab waaw nga xam ne sax ñaari ñett yooyu nga jënd ay doom naan mais ñoom ñëpp incha bu ñëwee si ñun buñ jóg mais xam nga nag lii maanaam lii jafe-jafe bi fii da ngay wax nit maanaam dañu am moyen dañu am moyen pour pour faj ko. man moom rab moom dama koy faj muy bu ne si jigéen bi muy bu si góor bi rab bi la benn rab bi la rek. benn kese la dañ koy faj yëpp benn rab bi la rek <laughs> rab moom amul ñaar amul ñett. <laughs> dañ koy nga xamante ni day tuur ëmb nag boobu bon na de. waaw mooy benn bi kër yi waaw am na na mais tamit mais tamit kër yi dafa fekk yow nga tooñ ko. Hmm. tooñ ko xam nga rab ñu bari dañ koy tooñ sa xamuñu ni tooñ nañ rab hmm. këram ngay daanee wala nga lakk këram wala nga dem ba këram nga dëkk fa. yow nag këram boo fa dëkkee nu la fay génnee da koy lakk. ñu bëree bëri loolu moo leen jàpp mais duñ si xam dara dañuy wër rek naan ñaanal ma ñaanal ma mais dañoo tooñ rab. Hmm. mais rab comme tooñoo ko nii rek xanaa rab nga dox nii ñu def lay ñoo ñooñu moom mën na am mais rab boo ko tooñu lu ci gën a bëri bëri du du yow lu bëri. du jot ak yow lu bëri. non non du jot ak yow lu bëri. Ahmadou lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV. waaw li may wax askan wi nag dafa am lu ma jigéen ñi yóbbante daal. ndax jigéen ñi dañ ma yóbbante ni euh, suñ jëkkër yi maanaam sëyatuñu ngeen presque. Mm-hmm. waaw ndax amatuñ doole. Mm-hmm. maanaam kàttanu sëy c'est quoi si wax fajal mu lànk. Mm-hmm. waaw loolu moom jigéen ñoom yow di ma ko wax ni ma insisté bu baax a baax a baax ndax ñoom sax ñooy ñooy obligé wu ñoom jël seen xaalis ñëw jënd garab dem di faj seen jëkkër. voilà ndax bu leen waxee da naan stress la. koo si wax mun la xam nga stress sama jàpp sa fekk loolu xam nga boo ko di ko def sa jabar bu yàggee mën a dem ba mooy. voilà ndax xam nga du jigéen ñëpp ñoo mën a muñ. am ñoo xam ne mën nañoo muñ dix ans. quinze ans sax duñ dem fenn mais am ñoo xam ñetti yooyu sax mënuñu ko muñ. loolu moom maa ngi koy ñaan góor ku si feebar mbiru kàttan fajul garab yi am na. lii ay garab yu wér la du ay naxee du dara. ay garab la yuy faj nit. ay garab la yu lay gaaw même bu amul. Euh, xaalis pour faju ndax faju bi yombul mhm. yow nga am loo xam ne rek da koy denc pour nga mën a satisfaire sa soxna mhm. si dund bi la bokk de bul am say million wala say étage ay immeuble ay milliards nga yaakaar loolu moo yor jigéen yorub jigéen sëy bi moo yor jigéen sëy bi moo gën a yor jigéen dangay gis fii jigéen ju rafet ñu naan waaw lu mu toppee ku yàmbare ki yorul dara lu mu ko toppee ah, <laughs> ndigili li ah, waaw ah, <laughs> moo tax maanaam mbir mu du xaalis kese mhm. lii daf lii dafa war a dëgër a sëy bu ko defu rek sa soxna nga la yëpp saa yeewoo di mer ak fu ñu fu ñu nga naan kii lan la fekk yow. joxoo ko dara si guddi gi. waaw loolu moom jigéen ñaa ma koy kii. waaw foofu laay tàggoo di ñaan laat sama xarit bi sëñ Abdou Karim yàlla na ko fi yàlla yàggal ak mboolem jullit. si dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. ayco dégg ngeen waxtaan wu am solo wi sëñ Basiiru Ahmadu waxtaan nekk na waxtaan woo xamante ni ku ko déglu xam ne borom xam-xam mooy wax mbokk yi jëmm ji toog naa ay at yoo xamante ni mel na mbubb lay sol li ko waral mooy ay jamono ak yu nekkoon ci moom. waaye gis nga suñu borom euh, li mu ko tàbbil muy yi nga xamante ne mooy bagage fajukaay yi mu ko jox mu ci faj jaamu yàlla yi nag di leen ci dimbali di xaritu si Abdou Karim Mbàkke waaye nag di borom xam-xam bu ragal yàlla moom it rab da koy saafara néew kàttan ak ndoxum siti yaakaar naa ñëpp xam nañ ne yàlla def ko cee may lool lool lool ay numéro téléphone yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp duñu ñu ci MPROD yi yàlla ngeen bëri jàmm ci dara jëy Muhammad Rasul